a jalandrede yamu dakar ñafa seride calane la doomu calan la doomu basul la doomu dëkk bi sax laa koy tuddee moom yaamu dakar nu bërekat la nee naa la boo ko gisee nii ak ya yeelam yi nga di ko xeeb na laa toroxal jiriñ waaye doole yaamine ale fasikaye nuno yodda afrika nana nun en dekte a ka waaye to leya amin yëngal waaw waaw